owi be njawtu di mu ne waxtaan nañ waaye nag waxtaan nañ ci lu nga xamee ne dana mën a jëriñ ñaari réew yi owi be kaaldi fodde kene nafa leedal di di fof taw ene nafa leydel di di fof ene nafa Sénégal ene nafa Algérie mu ne waxtaan nañ ci lu jëriñ Sénégal waaye lu jëriñ itam Algérie ñu ngi sant yàlla ci jotaay boobu jox na ko kàddu nag orokimu kongo ambassadeur orokimu kongol o wiwan hen koko waddi mu ne am na ay farata yu nga xamee ne wax dëgg yàlla jot nañ ko jëflanteeg yeneen kër kilifa yi diine yi o wiwan moƴƴereji ɓe mbaɗi ɓe fuddiɗume galle men ɓe o wi ɓe mbaɗi toon ndiyam e kawlax mu ne kawlax def nañ fa ndox sant yàlla ak yu bëree bëri def nañ ko foofu o wi gade kewɗe de galleji seeremɓe men ɓe o wi o yewtude ambassade o mune hottannak ambassadeur bi mu ne ko na ngeen ma defal lu mel ni eh, genre rapport o wi yan mbaɗanmi ko eno rapport kala ko sohlete maanaam càkkuteefi comme bu dee tey la ñu soxla ñu defal ko ñu defal ko ay genre kayit bu nga xamee ne mu ne lépp luñ ko indi ci dossier bu nga xamee lu war a mën a jëriñ la lu mu ci mën dana ci taxaw wi kala ko adday dossier to um wawi darade hen omo wawi hen walla omo hattini hen mo daro hen ko dañaani fof wawanade o yetteno mawni maw mawɓe makko ɓe wonɓe to leydi to mu ne lépp lu mu ci mën moom dana ci taxaw waaye lu mu ci mënut dana ko yóbbu ci kilifaam yu nekk ci réew ma incha allah mu ne ah waa yiw la wi ku mande mojj lañu alhamdulilahi rabbil alamin mu ne waaye yéen nag yéen may na leen yàlla may na leen sens muy muy guddeeg ma gi ñu dëgmal ngeen daje ci seen zaawiya julli fi wasifa bi allah no ken sens alhamdulilahi zaawiya mono on julli takusan on mbaɗiɗo wasifa mon alhamdulilahi rabbil alamin wi goote moɗon fof yo allah yoɓmu kadi um waɗanom sababu kumtal haajuji kenne ko nekk ci yen yàlla yàlla fay ko waaye defal ko muy sababu ko faju haaju ndax xam na ne kenn ku nekk dafa bàyyi soxlam waaw am na ñu nga xam ne jóge ñu Dakar sax kii mu ngi jógee ba Ngaparou bari na fi ay morom yi nga xam ne dëkk ñu fi yëpp génn nañ sax Dakar waaye dañu déplacé ñëw waaye nag yéen Cheikhouna Tidiane ngeen ñëwal o wi ko Cheikh Tidiane ngarɗon juurade ko kanko ngarɗon kadi jabbade koɗo makko alhamdulillahi rabbil alamin nimsa ala hen o wi allah waɗe moɗon barke onon fof dendagal yalno yo allah barke len yeen ñëpp yalno yo allah fay len alhamdulillahi rabbil allahuma amin